Sud Matin. Bonjour, 6h45 euh, sur l'ensemble du réseau synchronisé de scène radio. À la une de l'actualité, incendie à l'hôpital Maguette Lo de Linguère. Le ministre de la Santé annonce l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités. Abdoulaye Diouf promet un accompagnement aux mamans éplorées ayant perdu leur nouveau-né. Un incendie qui a fait quatre morts ce samedi. Tous des nouveau-nés, deux blessés ou plutôt deux bébés en réanimation. Et puis le DG du Sécud annonce la fin des cars rapides et Ndiagandia et un nombre de 600 bus Tata seront injectés

Aïssatou Gueye Ba. À la présentation, Assane Dioum assure la mise en onde de ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Incendie à l'hôpital Magatte Lô de Linguère qui a fait quatre morts, tous des nouveau-nés et deux autres bébés en réanimation. Le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr annonce l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités et promet même d'accompagner ces jeunes mamans éplorées ayant perdu leur bébé dans ce drame. Abdoulaye Diouf Sarr J'aimerais d'abord euh, exprimer toute la peine que nous avons effectivement à nous déplacer ici à Linguère pour euh, venir effectivement partager la douleur avec euh, les familles qui aujourd'hui ont perdu leur bébé lors de l'incendie qui s'est déclaré ce matin ici à l'hôpital. Vous comprendrez que c'est avec euh, beaucoup de peine que je vais m'adresser à vous. Pourquoi je ne pourrais pas être, euh, euh j'allais dire, euh, long. Je vais simplement dire que nous partageons euh, la douleur de ces mamans qui, dans une très grande dignité, la dignité dans la douleur, nous ont parlé et j'aimerais leur apporter le soutien de Monsieur le Président de la République, mais aussi le soutien du gouvernement et du peuple sénégalais euh, tout entier, parce que c'est extrêmement douloureux. Mais euh, ce qu'il faut effectivement noter, c'est que nous avons vu trois mamans qui, dans la très grande dignité, nous ont parlé dans une croyance extraordinaire et aujourd'hui, fondamentalement, euh, nous sommes venus leur apporter notre soutien. Nous voulons simplement leur dire que le gouvernement sera à leur côté pour leur apporter tout le soutien nécessaire, mais le peuple sénégalais dans son ensemble aussi euh, sera effectivement donc aux côtés des familles pour les soutenir, mais aussi pour partager la douleur. Naturellement, il y a un incendie qui s'est déclaré. Et en toute logique, euh, <laughs> l'enquête est en cours pour déterminer les causes de cet incendie. C'est pourquoi nous ne pouvons pas, outre mesure, euh, nous avancer sur le dossier au plan technique. Quand on aura le rapport, on saura exactement euh, quelle est l'origine de cet incendie. Un incendie survenu hier à l'hôpital Magatte de Linguère. D'ailleurs, le ministre Samba un des fils de la localité, était de la délégation du ministère de la Santé. Il a présidé euh, ou présenté ses condoléances aux familles éplorées et promet même un accompagnement conséquent du gouvernement qui compte poser un geste de soutien aux familles des victimes. Écoutons le ministre Samba Je voudrais d'abord rendre grâce à Allah subhanahu et prier pour que de pareilles choses ne, se reproduisent plus au niveau de cet hôpital, encore moins au niveau de cette région. Comme vous l'avez dit, je suis là pour accompagner le ministre en charge de la Santé et l'action sociale pour compatir avec les populations du Djolof de façon générale et particulièrement euh, les populations de Linguerre et les familles euh, déplorées. ce qu'il a déjà dit, je pense que je ne pourrais pas me permettre de revenir à ce niveau-là, c'est-à-dire la compassion du gouvernement et du président de la République en premier lieu, mais aussi réitérer le soutien de l'État à leur côté. C'est une situation très difficile, mais Dieu a fait que nous avons trouvé des parents très religieux et pieux, à telle enseigne que les mères de famille, malgré la douleur, l'ont accepté. Et par rapport à ça, on ne peut que par rapport à leur état d'esprit. L'autre aspect, comme vous l'avez dit, euh, je suis fils du terroir et par euh, la même occasion aussi en charge de la solidarité nationale qui est tout à fait évident dans de pareilles occasions qu que les gens sentent notre présence à leur côté. Ce qui se passe ici, et ce qui justifie notre présence, se passe ailleurs et à chaque fois de besoin également, nous sommes à la, aux côtés des populations. Donc euh, ce que nous voulons juste euh, rassurer, c'est surtout la présence effective du gouvernement aux côtés de ces familles éplorées à tout point de vue, Inch'Allah. Tout à l'heure, en recevant les familles des victimes, quel est le message que vous leur avez dit La première chose que je leur ai dite est surtout euh, de rendre grâce à Allah SWT du fait quand même que ce sont des enfants. En plus de cela aussi, euh, ça coïncidé avec le mois béni du Ramadan. Et en plus de cela aussi, c'est un accident qui a occasionné quand même ce désastre. Et par rapport à ça, donc on peut se dire que nos enfants, nous tous, sont au moment où je vous parle au paradis. Et donc ne serait-ce que pour ça, c'est très très réconfortant malgré la douleur. Et cette douleur que nous partageons tous aussi, et c'est tout à fait évident quand même que ça puisse réconforter toute la famille. Donc en un mot, c'est l'ensemble du gouvernement qui est là aujourd'hui à travers le ministre de la Santé, de l'Action sociale et moi-même et l'ensemble aussi des directeurs généraux que nous avons trouvés sur place. Donc une façon de dire que tous les responsables du Jolof, y compris les honorables députés, tout le monde est là pour compatir avec ses familles, mais aussi euh, leur manifester notre solidarité à tout bon lieu. Je vous le disais en titre, la journée mondiale de lutte contre le paludisme célébrée ce dimanche au Sénégal. Le Sénégal qui a fait d'ailleurs beaucoup de progrès, mais il reste beaucoup à faire. Kédougou, Tambacounda et Kolda les zones les plus touchées par le paludisme. Le paludisme que le Sénégal compte d'ailleurs définitivement éliminer d'ici Le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme plaide pour la mobilisation des ressources pour l'atteinte de cet objectif. Le docteur Doudou Sen, coordonnateur euh, du mouvement, ou plutôt du programme national de lutte contre le paludisme, est joint par Mamdiara Da Silva. Si on prend la zone verte, qui est constituée essentiellement par les régions de Louga, et une partie de la région de Ziguinchor, considérée comme la zone verte, couvre à peu près

mais également sur l'accès des structures de santé par les populations qui avaient à un moment donné eu à craindre la contamination et qui faisait que quand ils avaient la fièvre, ils restaient chez eux. Et peut ça, c'est des explications. Mais de l'autre côté, il y a d'autres facteurs environnementaux, notamment la pluviométrie cette année qui a fortement augmenté, qui peut peut-être expliquer ces situations. Mais quoi qu'il en soit, le ministère de la Santé a permis quand même qui nous ont permis de dérouler les grandes stratégies de masse que nous avons l'habitude. Le paludisme qui a entraîné la mort de près de personnes dans le monde en en grande majorité des enfants de moins de 5 ans. Bien que mortel, ce parasite peut être soigné grâce à des traitements aussi appelés euh, bithérapie. Mais le problème de ces traitements, c'est que les parasites ont tendance à y résister de plus en plus fréquemment. Alors certains chercheurs travaillent sur l'élaboration de nouveaux médicaments et des essais sont actuellement menés Ghana, Bénin euh, et euh, Gabon. Je vous le disais en titre, problème de terminus aux gares, absence de contrat de travail pour les travailleurs des Tata Bus, entre autres difficultés qu'on rencontre les transporteurs Tata. Ils ont fait savoir au cours d'une assemblée générale. Des solutions sont d'ailleurs en cours et torque la tutelle et implique euh, l'implication des collectivités territoriales. Et là, je vous soutiens. Les transporteurs regroupés autour du GIE Darussalam ont soulevé d'énormes difficultés pour mener à bien leur travail. Il s'agit entre autres de problèmes de terminus pour les bus Tata. Les transporteurs veulent l'appui des collectivités territoriales pour aménager des gares dans les communes afin de mieux améliorer le service. Ndongo président GIE Darussalam. Certes, il y a des difficultés parce qu'actuellement, le personnel se plaint déjà. Il y a des gares qui n'ont pas de toilettes. Vraiment, c'est déplorable. Mais ce que les locales qui n'ont pas joué leur jeu. Normalement, chaque collectivité locale devait nous donner un lieu adéquat. On pourrait faire une gare routière adéquate, faire des toilettes, un aire de repos, une mosquée et aussi au moment de l'attente des, des clients, ils pourront se reposer en attendant que les cars euh, arrivent. Au cours de l'Assemblée générale, les travailleurs ont interpellé leur patron de travail. Ils exigent également des contrats en Le président du GIE rassure on y Mais malheureusement, lorsqu'on avait procédé pour euh, la contractualisation, le directeur du CETU mois d'avril. C'était en 2019. Mais

collectivités territoriales. Ce travail est entamé euh, pour les doter euh, d'outils de, de, régulation avec les aménagements. Ce programme se poursuit et va être euh, clairement euh, intensifié, je l'ai dit avec le projet que nous allons dérouler sur 2021-2023 qui porte sur les lignes de rabattement du BRT et le TR. Et les opérateurs seront en termes d'exploitation. De, Durant l'Assemblée générale, c'est Longofal qui est porté à la tête du GIE Darussalam. Le directeur général du CETUD demande aux autres GIE d'en faire autant pour une transparence. Le directeur général du CETUD qui annonce d'ailleurs la fin des cars rapides et un nombre de 600 seront injectés dans le circuit pour boucler la dernière phase sous peu. Écoutons Tierno Birahim Awa. Euh, c'est important aussi de relever euh, que sur la dernière phase des parcs de car rapide de Ndiagandiaï. Le programme a démarré depuis 2005. Euh, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, nous l'avons accéléré depuis 2015. D'abord en faisant une euh, extension aux différentes capitales mais aussi en renforçant le, le parc de Dakar. Il y a un programme en cours de 680 Donc je suis venu dire au président de GIE aussi qu'il fallait que toutes les mesures soient prises afin que en fin d'année, fin 2021, nous puissions terminer la dernière phase du programme et initier les programmes phares du ministère des Transports terrestres et du désenclavement. Euh, ces programmes concernent notamment la première phase de renouvellement du renouvellement euh, du parc, euh, parce que les véhicules de 2005 euh, aujourd'hui sont arrivés à un niveau d'obsolescence. Et euh, la deuxième partie euh, euh, très importante, c'est la restructuration globale du réseau de transport collectif. Pour ce projet majeur du chef de l'État, nous devrions euh, aller vers une, un nouveau cycle de vie pour Dakar, Demdik et Aftou en les dotant de moyens de transport plus adéquats. Ça veut dire plus respectueux de l'environnement, plus confortable, plus sécuritaire, avec euh, une convergence de performances que nous allons chercher avec les moyens. internationale.

au confinement imposé dans certaines villes. Le Brésil

7h0 minutes sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio et nous accueillons El Hadj Malick Ndiaye pour la version Wolof de cette première édition. jërë ngeen jëf mbokk déglukat yi asalaamaaleykum juróom-ñaari waxtu moom mooy soog a jot ci suba si gën fa si wax seen ko faram fàtte mu ne ba gën a sell ak lakk gi amoon ci hôpital Magatte Lô nekk ca Linguère ministre bi dénk wàllu paj gi nag moom wax ne nañ ubbi ab l'enquête xool na ku ci nekk dama ci nekk sa responsable Abdoulaye Diouf Sarr kàddu yi mu ko yëkkati ginnaaw ba mu yóbboo nag ay ndimbal ci ñi nga xam ne ci am ay loraange directeur général bu CETUD wax ne na kat yëpp lu wàllu kaaraat ak njagajaay dina jeex kàddu yi nag mu ngi ko rotal ba tey ci wàllu xibaar tey ji la ñuy màggal nag xeex wàllu siburu bi fii ci biir euh, àdduna bi yëpp euh, Sénégal gis nañu nag yenn gox yi fu ci mel ni Kédougou Tambacounda ak euh, Kolda yëf yi nag fa la gën a tare duñu fàtte xibaar bitim réew Assane Tour moo nekk ci wàllu xarala El Hadj Malick Ndiaye. fexoon ci xibaar tamit euh, lu jëm ci lakk gi am ci hôpital euh, Magatte euh, Lô ca Linguère ministre bi ñu dénk wàllu paj gi ak action sociale nag demoon na seeti ñi nga xam ne nag ñoom waajur yi am ci seen doom ñi ak seen bakkan ñeenti diir nag ñoom ñoo ci rot Abdoulaye Diouf wax ne kat nañ ci ubbi nag ab enquête ñu déglu ko mu ca leeral. tey dañoo ñëw fii si hôpital Magatte Lô avant may continuer di wax sax dama bëgg donc vraiment ñaanal les familles. parce que léegi laa dugg salle bi fekk naa fi ñetti jigéen yoo xamante ne wax dëgg yàlla seen métit tar na métit boobu nag Sénégal yëpp mu ngi koy partage ak ñoom président de la république Macky Sall mu ngi koy partagé ak ñoom gouvernement du Sénégal mu ngi koy partagé ak ñoom peuple Sénégal yëpp ñu ngi koy partagé mais li ñu seetlu aussi lu mu métti métti nangu nañ ko ak dignité ak gëm yàlla loolu tam vraiment muy loo xamante ne ñu seetlu la bon nag li ma leen mën a wax rek mooy que ne bi ñu ko yogee tey si suba la ñu bàyyi lépp lu ñu def jóge Dakar ñëw fi man nag euh, sama collègue euh, monsieur le ministre bi xamante ne moom moo yor solidarité nationale Samba Ndiobène Ka muy doomu d'ailleurs région bi ñëw pour bokk métit bi ak famille yi ne leen nag gouvernement bi rôle mooy mu ànd ak ñoom gunge leen jàppale leen ba métit bi ñoom rek ñu bañ ñu bañ ko bokk mais ñu bokk ko askan bi yëpp. fas ngeen cee ab enquête pour situer responsabilité waaw yaakaar naa ne loolu moom dafa nekk loo xamante ne d'ailleurs euh, lu évident la euh, incident bu mel nii bu amee lu ñu war a jëkk a def mooy déjà ñu xool lan moo ko waral. moo tax d'ailleurs euh, mënuma donc avancer trop techniquement si dossier bi damay bàyyi enquête bi mu déterminer lan moo waral incendie bi bu ko defee nag. ñun ñu mën a xam effectivement donc naka lañ si war a mën a taxawee. concrètement ci wàllu ndimbal lan a indil ñi nga xam ne ñoo nga question boobu nag euh, vraiment euh, du neex tontu euh, li ñu bëgg rek mooy ngeen xam ne nañ leen jàppale fa jàppale yem parce que ñun ñoo war a bokk ak ñoom tiis bi parce que tiis bi tiisu Sénégal yëpp la. ñu wax ci euh, mbir moom sax ak kii di ministre Samba Ndiobène Ka mi ngi njëkk nag wàllu équité te bokk ci dëkk ci ko boobu moom tam euh, demoon na fa ànd ak Abdoulaye Diouf Sarr ñu déglu ko ba tey moom Abdoulaye moom Samba Ndiobène Ka. li ma njëkk def mooy euh, sant yàlla julli ci rasul alayhi salaatu wasalaam waaye aussi sant président de la république son excellence monsieur Macky Sall bi nga xam ne suyu mel nii amee mooy joxe ndigal que ne na gouvernement am nekk ci wetu population bi accompagner leen. ci métit yi nga xam ne ñu ngi koy jànkoonteel mais aussi sant ki nga xam ne moom mooy euh, sama collègue di sama mag euh, le ministre en charge de la santé et de l'action sociale sant ko déjà parce que kenn ku ne xam na ne fan yi ñu toll du nit ko am jot waaye terewut bu lii amee def ne ne day bàyyi lépp du yónnee du yónnee mission def mooy ñëwul boppam kon dañ koy sant ci loolu mais aussi jaale ko parce que njaboot bi fi jógee avant tout chose njabootam la moom que nag ci biir këram la def mais aussi en profiter pour euh, jaale waa Jolof yëpp jaale aussi euh, le ministre Aly Ngouille Ndiaye mi nga xam ne ci biir commune am la lii amee mais aussi jaale toute la population du Jolof par rapport ak li nga xam ni moo fi xew tey mais sant yàlla nag euh, bi ñu ñëwee aussi population bi ñu fi fekk rawatina waajur yi njaboot gi fi jógee fekk na ñu nekk ay nit ñu am diine nit ñu jullite waaye nit ñu gëm yàlla nangu nan ndogal et nangu nan ko aussi ci xol bu sedd guy malgré que ne métti na lool. et beneen fànn bi aussi ñun am na njort bu rafet. ci li nga xam ne moo xew. benn ay gone yu ndaw lañu. kon am na njort ne gone bu ndaw bu xamagul dara. amagul bàkkaar beneen aspect bi. ci weeru koor la lii amee. ñetteel ba aspect bi moom mooy ci accident la amee. kon ñett yooyu yëpp su dajaloo. ñun am na njort ne suñu doom yi nga xam ne ñoo fi génn tey malgré métti na. waaye ñoom ñëpp tey ñu ngi àjjana firdaws waaye yàlla nattuñu tamit ñu yore li nga xam ne mooy solidarité nationale képp koo xam ne danga am ay jafe-jafe ci réew mi day baax ñu gis ñu foofu ñu am taxawaay bu mu fa taxaw kon ci gàttal li ma leen bëgg a wax daal mooy que président de la république son excellence monsieur Macky Sall ni mu koy defee feneen ak feneen nee na ñii timit coono bi dal ci seen kaw nañu sentir gouvernement bi foofu nañu leen accompagner ci biir ak ci biti te incha allahu taala dinañ leen accompagner ni mu waree. ba tey ci wàllu woowu lañ jeex ci wàllu xibaar tey ji lañ fi jeexlee nag li ñuy xeex wàllu sibiru fii sibiru bi ñu jàpp ne kat am na jéego yoo xam ne def nañ ko waaye nag chiffre bi dafa gën a yokk ak wàllu mbas mi rawatina nag fële ci Kédougou Tambacounda ak Kolda di gox yoo xam ne fi daf ko lëmbaaje bu baax a baax docteur Doudou Sène moom mooy coordonnateur national de lutte contre le paludisme ci micro man joxe da Silva. tey jii boo demee ci zone Tamba Kédougou Kolda foofu nag la parce que li koy firndeel mooy tey jii ci seize millions de sénégalais mën naa ne presque neuf millions neuf cent trente yëpp en deux mille dix neuf pratiquement cibre bi dafa fi njombe yu bëree bëri. par contre boo demee tey ci boori sud Sénégal bi Kédougou Tambacounda. treize pour cent population bi kese kese rek am na ñu plus de deux cent quatre vingt onze mille huit cent quarante cas de paludisme. en deux mille vingt bi ñu nekk nag dañoo gis. ci groupe bi xaw naa yokk tuuti li ko waral mën nañ ko jël ay facteurs yu bëri bi ci njëkk mooy taw bi bari woon na mais tombé ak coronavirus bi nga xam ne dafa xawoon a lëmbay àdduna bi yëpp ba activités yi ko war a déroulé mais également ci population bi ci tax na peut-être teel la ñoo dem ci hôpital bi ba tax na li ñu amoon ci ay cas pratiquement mën naa ne yokk na ci euh, lu tot euh, fukki junni ci ay ay yi yu ko am ñi ci faatu nag heureusement que moom wàññeeku na wàññeeku na pratiquement mën naa de plus de ci li ñu amoon ci ay décès tolloon nañ ci pratiquement cent quatre vingt onze rek mais daaw ñu ngi amoon pratiquement cent onze donc xaw naa yokk tuuti ba tax na donc euh, lii nag li ñu ko may mooy stratégie yi ñu déroulé ci biir campagne bi moo tax tey jii peut waroon na fee gën a yokk mais état jël na ay dispositions yi nga xam ne tey agent de santé yi dote nañ leen jumtuwaay yi nga xam ne mooy nécessaire mooy masques yi avec partenaires yi ñu appuyé plus de un million cinq cent mille masques yoo xam ne séddale nañ ko au niveau de santé pour permettre agents yi def correctement seen liggéey. ñu wax ci euh, lu jëm ci problème tribuniste ak gaar yi ak tamit lu jëm ci contrat liggéeykat yi nga xam ne nag ñu ngi ci dem bi di ki war a bis ak yenn jafe-jafe ñu jànkonteel Euh, am nañ nag ab ndaje boo xam ne amaloon nañ ko ci démb dañ ci ànd ak kii di El Hadji Moussa Thiam transporteurs yi nga xam ne nag dañoo bootu ci GIE Darou Salaam ñoomee yëkkati nañu ay difficultés yu bëri yi nga xam ne rek daanaka daal gàllankoor na bu baax a baax li jëm si seen wàllu liggéey bokk na ca jafe-jafe ci ay terminus pour seen i bus yi tata yooyu nag ñoo ngi sàkku sax ci collectivité territoriale yooyu ñu jàppale leen ngir ñuy aménager ay gar ci communes yi ngir gën a mën a yembal dem dikk bi wala sax liggéey jëmale ko ci askan wi mooy président GIE Darou am nañ ci problème bi parce que collectivité locale yi. ñoo nu waroon jox ay terrain ñun pare nañ ci bu ñu joxee ay terrain ñu defar ko. Euh, directeur d'étude jël na note. xam naa dana ci kon ne waat di dox. déjà fu mel ne APIX fi nga xam ne ligne 37 bi foofu lay kilee. waa APIX ñoom jox nañu fi koo xam ne nañ faa def terrain parce que gën ta metti ngay liggéeyaloo ay nit ñi ñoo xam ne bu sutur lu jotee dañuy dugg ci këri nit ñi du bees defar ko ba moderne comme terminus yi ci des. ci biir assemblée générale bi ñi nga xam ne nag ñoo di liggéeykat yi nekk ci biir bus Tata ñoo ngi yëkkati seen i kàddu rek di interpeller seen patron transporteurs yi ngir ñu amalal leen seen i nu mu gën a gaawee loolee sax boo tax ne ki nga xam ne moo di jiitu GIE bi di ci dalal xel yi. contrat yi am nañu ko ko ci amul man am naa ay contrat am na ñeneen ñoo xam tam am nañu contrat mais li yi itam directeur actualiser personnel bi mais malheureusement bi mbas mi ñëwee nag moo yàqaat lépp mais léegi ñoom dugal nañ doléance boobu directeur CETUD jël na note incha allah dinañu fexe ba. directeur général bi nga xam ne moo présidé woon assemblée générale bi moomee tamit mu ngi daloon xel yi ci wàllam Thierno Birahim Aw mooy directeur général bu CETUD. gaar yeeg terminus yi. am na loo xam ne war nañ ko ci dolli. transport bi waaye programme mu état mi ngi ci. Euh, restructuration réseau boobu may tudd mooy ni ñuy tëggaatee ligne transport collectif bi mu war a ànd ak BRT beeg TER bi ñu ngi xool. espace yi nga xam ne nii dañ ci indi financement mu nekk ay gare ak ay terminus ñu defar ko ba nga xam ne dina méngoog jamono am ay toilettes am confort ci njeextal daje gi nag ki nga xam ni moo di ndongo Fall moomee tamit dañ ko tabaat rek mu nekk ci bopp GIE Daaru Salaam loolee sax tax na ba directeur général CETUD di sàkku daal ci yeneen kuréel yi ñu ŋànk transport bi ñu amal ni ki mel Moussa Thiam directeur bu SEDIS wax na ne nag dañuy dakkal lépp lu jëm ci wàllu car rapide Ndiaga Ndiaye ci nombre 600 yoo xam dinañ ko tata yoo xam dinañ ko ci def loolu nag dugal ko ci circuit bi ngir rek fàtt loolu ñu déglu ko moom directeur étude di Thierno Birahim Aw ci micro El Hadji Moussa Thiam. ñu ngi ci liggéey bu am solo nag mooy euh, fexe ba 2021 bi programme car rapide ak Ndiaga Ndiaye jeex ci dakaar ñu ngi liggéey fi mu toll nii ci programme boo xam ne 680 bus. yaa ngeen koy gis am na ñu tàmbali dugal ci réseau bi yooyu moo ñu war a permettre ñu génne li des ci car rapide ak njaganjaay foofu opérateur yi ñu ngi baral su ko defee euh, dafa am liggéey yu ñuy xaar yu am solo muy projet yoo xam ne projet ministère des transports le projet président de la république mooy bi ci njëkk ñu tàmbali renouvellement renouvellement bi mooy oto yu jugoon 2005 te tey gis nañ ne seen melokaan méngoowul ak li ñuy xaar ci transport yooyu ñu farlu ci commencé leen génne lu tolloog 400 véhicules la. beneen bi ci des mooy dafa am pàcc bu am solo ci BRT bi ak TER bi li ñuy tuddee restructuration globale du réseau de transport collectif maanaam ni ñuy tëggaatee réseau bi fexe ba lënkale BRT bi ak TER yi ak gox-goxaan yi ak matuwaay yi ci war a def foofu dañ ciy liggéey ak aftu ak Dakar dem dikk pàcc boobu war a indi ay oto yu bees oto yu bees yu méngoog li ñuy xaar ci euh, sàmm sunu alam oto yoo xam ne dafay am capacité am qualité am sécurité ñu tàggat opérateurs yi nag doog leen ko jox programme boobu ñu ngi ciy liggéey Euh, am ci yaakaar bu bu am solo. am ci yaakaar bu am solo ñu wax ci ki nga xam ne nag moom moo jiite les forces démocratiques FDS les Guelwaar nee na nag euh, li nga xam ne rek moom mooy conseil présidence bi amoon nag ci euh, fa li nga xam ne dem ci wàllu xëy xale na kese la kàddu yi docteur Babacar Diome ko ci bi mu doon dalal nag kii di Babacar Seye bu Horizon Sans Frontières docteur Babacar Diop ñu dégg ko mu ci leeral ci micro Babacar Samb. jàppee a nax la xewoon conseil présidentiel la Cheikh Anta doon naa waxi euh, nax sax xandang loolu la ay ay naxe la c'est un grand théâtre de mensonge de manipulation et d'illusion Macky Sall bala muy jël 450 milliards ni da koy naxe xale yi li ñu koy laaj xaalis bi ñu dugal ci ANPJ nañu wax fan lañ ko dugal ak kan lañ ko jox évaluer xaalis bi ñu jox DER nañu wax kan lañ ko jox fan la dugg ñan ñoo remboursé Prodac xaalis bañ fa luubal muy ay milliards boobu ba léegi askan wi di ko jooy nañu wax fan lañ ko dugal ADPME FONSIS FONGIP nañ ñu wax xaalis ñun duñu ay xar duñu ay bëy yu ñuy nax yi ak léget dañu soxla ku ñu respecté dañu soxla ku ñu wet soxla wu ñu ay nax doyal nañu ci ay nax ñépp yeewu nañ ci jël sa clientèle politique pour faire du théâtre avec eux comédie boobu dañu ci doyal bu baax a baax nga ni da xeex chômage plus de mille entreprise tëj ci réew mi ndax Covid nga jël ay institutions yu amul benn njariñ réew mi di renforcer seeni budget chômage kenn du ko xeexe ci jël ay milliards di séddale ñu wax ci ki nga xam ne nag moom mu nekk Boubacar Seye moom tam jiite Horizon Sans Frontières ci ndaje ma ba mu jeexee rotal na ci ay kàddu ba tey ñu déglu ko ci micro Babacar Samb. sur le cas Tounkara. damay lay interpeller monsieur président de la République. parce que tey euh, y a un danger. boo xam ne suñu deful nànk rek. Euh, ça exposé exposer doomu sénégalais boo xam ni yaa ngi fii ci réew mi wala ci bitim réew. parce que on a utilisé le mot terroriste. tey bi nga xam ni tey ces questions la moo nekk dans toutes les lèvres tey nag dafa am ce qu'on appelle une crise de confiance aiguë entre la diaspora jëmale ko si l'état du Sénégal ses institutions et ses hommes politiques c'est extrêmement grave dem dañ ma xam ni kenn gëmatul kenn loolu moo indi cette évolution au sein de la diaspora ñëpp mer di wax bien que sax d'accord ci yenn forme yi parce que man dama jàpp ni lépp wax la euh, dans la discipline du ñu saaga du ñu xaste te mënuñu cautionner loolu du ñu sax menacé mais lépp rek war nañ koo mën a régler ci waxtaan. mais boo demee bay jiiñ sa doom terroriste gis nga on a eu le cas avec Assane Diouf ñu indi ko Sénégal. nga demaat jiiñaat kaneen c'est pas une bonne stratégie parce que su yàggee dañ naan sénégalais fii kat Sénégal dëkku terroriste la le Sénégal est un nid de terroriste loolu ça nous expose tous képp ku yore passeport sénégalais di di soo eggee ñu xool la xoolu terrorisme. ñi doomu sénégalais yi nekk ci bitim réew ci contexte bi ñu nekk tey avec les amalgames l'islam migration l'islam la migration mis au banc des accusés par une laïcité juridico-politique les amalgames dañuy exposé ñun ñëpp loolu baaxul te ñooñu ñoo yore Sénégal gis nga tey suñu organisé diaspora loolu la Chine def loolu la Inde def li ñuy dugal ñoom seen dëkk looloo yore seen dëkk il faut impliquer la diaspora dans le processus socio-économique du pays ñu wax ci projet bi nga xam mooy nag jëm ci régulation foncière ci dëkk bi di Thiès di promoteur privé yi nag lëkkaloo ceeg services fiscaux yi tàggal toll ci nag trente trois cent jeunes euh, ci nag métier euh, d' enquêteur fon euh, foncier dañ ci ak Thiès ci ak Babacar Ndaw ñu fas yéene toll ñetti téeméer rek ndaw yoo xam ne dañ leen tàggat ngir tey jii ñu xool bépp kër bu amul këyit ci biir ville bu Thiès ñu ànd seeg ki nga xam ne moo sooke projet bi ngir ñu mën ko identifier ngir yombalal borom kër yooyu ñu am këyit Habib Kane ab promoteur lëkkaloo si ak centre de service fiscaux bu Thiès. lii ma xalaat yàgg na lu ma yàgg bëgg la lu ma yàgg mbëbët la parce que euh, du kaaw mbuurkaat bi sax tax moo tax may wax mais dama bëri ay dëkkandoo yu ma dëkkal yoo xam ne menace. Et c'est ça qui m'a motivé aujourd'hui pour que me former des jeunes. tax nag waa bureau cadastre di tàggat yombalal ndaw yi fas doon seen liggéey Modou Diakhaté di ingénieur géomètre de conception. man ak sama équipe ñoo war a ànd ak euh, ñi nga xam ñoo war a demandoo si terrain bi war a def relevé topographie accompagné de ces enquêtes foncières pour mën a traiter données yi buñ si liggéey ba pare liggéey bi jaar yoon donc mën nañ jàpp ni kees gi yëpp la ñuy sillonné bu ko defee moom kees moom lan nekkoon xamante ne moom mooy xaar ñii di participer si formation bi bokk na si Amadou Fall Cissé. parce que am na kër yoo xam ne ñoo ngi Thiès gisoon nañ fi problème bi xawoon mburkaat lu yàggul dara donc war nañoo mën a jóg recenser kër yi nga xam ne amuñu papier légaluñu ñu def de telle sorte que ba ñu ñoom tamit ñu légal. mag ñi sax kenn demul ñu des ginnaaw bu ñu sukkandiku ci Koumba na Diouf ak principal la retraite la. chaque jour on entend les difficultés qu'il y a à gérer l'espace que nous partageons. su ko defee lii dafa nekk initiative bu am solo Habib Kane jël ko ma ko si encouragé. ak ginnaaw euh, projet bi nga xamante ne tey jii waa Thiès ñu bari ñu ngi koy xaar jafe-jafe suuf kër yu amul këyit beneen opportunité moom mooy xale yi lu toll ci ñetti téeméer ndaw fas yéene ci am lu ñuy jàppandi. ni fii projet bi di jeex waaye it lijaasa yi ñu leen di jox dina leen permettre fépp fu ñu soxlaati liggéey bu ni mel ñu mën si gunge centre de services fiscaux bu diwaanub Thiès Babacar Ndaw Thiès Sud FM. Babacar Ndaw ñu wax ci xeex bi ñu xeex ak li jëm nag ci wàllu li ñu gën environnement ak tamit Caritas bu Kaolack nag lëkkaloo ci askan wi euh, def nag wàllu protection ak mise en défense loolu ci rek neuf réalisations yoo xam ne am na ci arrondissement bu Dina Sabax dañ kii di Adja Awa Thiaw aar suñu alam bi fexe ba mu kuwaat ci biir Saalum nekk na yitte ju tar ci Caritas Kaolack looloo tax nag ay at ngi ni muy gunge askan wi nga xamee ne si nekk nañ ci yenn gox yi ñuy defaraat li nga xam ne si moom moo nekk àll yi nga xam ne moom moo leen wër équipe développement rural bu Caritas ànd na ak autorités yi nemmeeku yenn réalisation yu ñu def ci Taïf ci biir commune bu Ngayeen Sabax département bu Nioro kii di abbé Etienne Denendong directeur bu Caritas Kaolack nee na bu fekkee ne kenn ku ci nekk joona ci loxoom ñépp wane takkuteef ci biir askan wi danañu mën a soppali li nga xam ne si moom moo fi nekk. dem nañu ci dëkku Taïf fi nga xam ne dañu fa amal aire de mise en défense mu nekk. bërëb boo xam ne presque gàncax nekkatu fa woon garab gu mag nekkatu fa woon population yi ñu wax ne bërëb bi de dañ koy bàyyi kenn du ko laal kenn du ko gor ñaguñu ko soppeeku u xel ak xol la laajte ndax ñu mën a suuxalaat te suqaliwaat gàncax gi nga xam ne moom moo ñuy aar lépp li nga xam ne daa nekk conséquences yu jógee ci soppeeku u jaww ji mu nekk ay conséquences yoo xam ne dañoo métti ci dund ak dundinu askan wi dañoo ràññee ne ci jëfu nit la bawoo te ci jëfu nit également mën nañoo soppi jëfin ba li nga xam ne dafa tasoon ñu naatalaat ko mooy àll bi mooy garab yi te loolu la ñu gis tey ah sedd na xol ndaxte population yi engagement bi nga xam ne jëloon nañ ko signé ko respecté nañ ko bu baax a baax ba àll ba na mu rafetee te naat daf ñuy won ne mënu ku nekk ci ñun bu ci dugalee loxoom mënuñoo nekk rek di wax naan tàng na taw bi bëreetul ndogalu yàlla la yàlla daf ñoo may xam-xam daf ñoo may mën-mën may ñu xel te ba mu sàkkee suuf daf ko dénk nit ndax mu gën ko naatal gën koo toppatoo foog naa bu ñu dellu see ci loolu rek mën nañoo gën a jàppoowaat te ci dëkk bu nekk ñu mën faa am benn aire de mise en défense loo xam ne dana nekk sorte de loo xam ne diiru ñetti at ñeenti at mën nañoo wax ne ah dëkk bi de soxla na mat ñu xool nan la ñuy defee exploitation rationnelle boo xam ne du faire disparaître espèces yi nga xam ne dañoo nekk mu sedd xol mooy am na espèce yoo xam ne nekkatuñu woon ca dëkk ba ñu ngi tàmbali di leen di gis te loolu nekk lu ama am solo. lu mat juróom-ñeenti mise en défense di ay àll yoo xam ne si seenub dend tollu na ci téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaari hectare jot nañ ko defaraat ci arrondissement bu na Sabax rek expérience yooyu nag bu fekkee ni dey wesaare nañ ko. dina mën a nekk saafara su baax ngir defaraat dend bi ñuy wër awa cëw doon jokkoo ak yéen fii ci diwaanu Saloum pour Sud FM ñaar fukki simili ak benn moo toftalu ci 7 heures di sant gërëm ba Assane Thioum nekkoon ci wàllu xalaat ci kàddu gi El Hadj Malick Ndiaye jaa ngeen jëf.